dëkku mooy sunu gaal li fi junne bësin bëgg naa leen Cheikh internet nuyu nañ leen dalal nañ leen tamit seen émission li ci xel yi ñoo ngi fii nga xamante ni mooy ci arrêt Dakar dem dëkk yi dañuy ñëw laajte sénégalais yi nga xamante ne ñooy yéeg ci bus yi maanaam ñooy dugg ci Dakar dem dëkk yi nan lañu gisee Dakar dem dëkk nan lañu gisee Euh, attente bi est-ce que euh, attente bi gis nañ ci seen bopp est-ce que yàgg na wala yàggul est-ce ñu ngi yëg seen bopp ci li nga xamante ni mooy liggéeyu Dakar dem dëkk. loolu yi bu ngeen ci bëggee xam dara topp leen ma ñu xool quelque ci ñoom clients yi dëkk leen suñuy micro. asalaamaaleykum tonton. waaleykum salaam. tur bi naka la. Basir. Basirou dañ la fekk fi nga xamante ni mooy arrêt Dakar dem dikk bi est-ce que li ngay xaar ci Dakar dem dikk yaa ngi koy am. bon maa ngi koy maa ngi am parce léegi. presque territoire vieux, il lañ maye fo bëgg dem surtout région Dakar dem mais li ma remarque remarque, y y a un grand écart entre deux cars Si so ñëwee surtout nga raté ben bi dem nga presque une heure de temps quelquefois.

par exemple euh, itinéraire u bus mon nañ ko jéem dougal ci ci net bi nga xamné so soo bus bi di nga xamné so waccé fi fii mun a jël beneen bus quoi pour mun dem parce que itinéraire bi tant que soo koy lire sax do mun xam réellement fi muy jaar quoi voilà ok merci beaucoup monsieur Ba. merci. parce que moyen de transport du ñëpp ko am amna ño xamanteni tay ji amuñu auto buñu ñu tay ji li lañu mëna am pour déplacer wu. nga fay sa ticket mën déplacer wu taf taf la te bus yi wax dëgg yalla confortable na neex na wax dëgg yalla période tangay bi tamit da nga ci yek sa bopp ventilateur yi di tàkk ngay mën am jamm ci lolu rek wax dëgg yalla lu ñuy rafetlu la quoi. lan nga ñu mëna wax ci accueil bi ba accueil bi ci biir bus bi ñi nga xamantene moy receveur yi ak euh, ak ak chauffeur yi est-ce que dinañ ko tek ci yoon. waaw dëgg la chauffeur yi moom wax dëgg yàlla man moom naw naa leen ci côté boobu parce que dañ koy teg ci yoon ñoom ñoom. Euh, je pense que ni ñoom jalgati parce que ñoom fu dul arrêt duñ fa taxaw te bu ñu yegsee ci arrêt tamit dinañ taxaw ñu bëgg a dem yéeg kon ñoom chauffeurs yi jalgatiwuñ benn yoon des fois nag nga gis ci chauffeur yoo xam man ligne bi may jël mooy 221 bi du ma ne du benn du ñaar du ñett xuloo naa ceeg chauffeur yi ci affaire weccet parce que nit ki tey duggee géejawaay euh, di ñëw noor Foire yëkkati mille francs jox la dëgg la tamit Euh, yow yaa war a def point am weccet bala nga yegg ci bus bi dëgg la mais des fois nit ki dina yàqamti yàqamti boo xamante ni tey jii du ñëpp a war a du am temps bi du ñëpp a a lii quoi tey jii bu yéegee ne la non amuma monnaie jox la 1000 francs nga ne ko non da ngay wàcc fekk ne bus bi départ na ba pare euh, tey jii euh, nekk na loo xamante ne lu naayisul la quoi ñun rafetlu wuñ ko nga ciy xuloo ak nit ñi chaque instant moom du lu ñuy rafet lu ñun waaw ci affaire monnaie quoi ok jaajëf mu ngi